di muslu ci moom suñu ñaawteewi fi jëf di wax ne képp ku yàlla subhaanahu wa jubal amul lenn lu la mën a dëngal waaye képp ku mu dëngal ci maandu teem amul lenn lu la mën a jubal di seede amul kenn wala lenn lu ñu jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala moom dong duñu ko bokkaale ak leneen waaye di seede na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ndawul yàlla la ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala na lii di ragal yàlla subhaanahu wa taala mooy ndénkaane yàlla subhaanahu wa jiitu ak nga xamante ne ñoom ñoo mujj يا الله سبحانه وتعالى من وقت القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا نانا دينكنا جاي نخمنتيني من نورين جيتوان مواتيوان تنيوم أي تيري دينكنا لين بوكنا تلمين دينكون موي رجل يلا سبحانه وتعالى ترجل يلا سبحانه وتعالى موي جنبي nekk ci ndigali yàlla subhaanahu wa taala sori li nga xamante ne moom mooy ay tereem ginnaaw loolu jaamu yàlla yi bis yi nga xamante ne nii ñoo ngi koy dund fan yii nii bis yu barkeel la bis yu yàlla subhaanahu wa def barke ci bis yooyu la bisi yu yàlla subhaanahu seedeel na bis yu màgg la yàlla subhaanahu wa waat ci bis yooyu muy fukki fan yi njëkk ci bisu tabaski muy ashra dhil hijja muy fukki fan yi nga xamante ni moom moo njëkk ci weeru tabaski bi yàlla subhanahu wa taala màggaayu bis yooyu moo tax mu waat ci alquran alkarim waat ci suratul fajr ne wal fajri wa layaalin ashr yàlla subhaanahu wa taala waat ci fukki fan yooyu noonu tawatu yalla subhanahu wa taala ci bis yooyu noonu day leeral ak fësal màggaayu bis yooyu noonu waaye ngëneel yi nga xamante ne nii am na ca bis yooyu noonu ba tax na loolu fësal na jëf ay jëf yu baax ci bis yooyu noonu dafa wuute ak jëf ay jëf ci yeneen bis yi nga xamante ne du bis yooyu noonu kon jëf jëf ju baax ci bis yooyu nga xamante ne moom fukki fan njëkk ci bisu tabaski di dil hijja ashra dil hijja am na ngëneel yu rëy rëy rëy moo tax yonente bi alayhi wa sallam ci xadis bu wér yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne afdalu ayaami dunia ayaamu al ashar yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne bis yi gën ci bisi àdduna bi yépp nee na moom mooy fukki fan yi nga xamante ne moom moo ci ذي الحجة تموي بيرو تبسكي ودعي أنت صلى الله عليه وسلم وحتي بين الحديث بويرور تي حديث عبد الله بن عباس يالنكو يال قرم ينتبه صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل صالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ينتبه صلى الله عليه وسلم دينين أمول أي بس يوخم انتيني تبسي جف جلو باخ mom moo moom lañ gën sopp ci yàlla subhanahu wa taala mom la yàlla gëna bëgg ci lu moy bis yi nga xamanteni mom moom lañ nekk mooy bis ki fa ni jëk ci wëru tabaski yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam sahaba yi dal ni ko yaa rasulallah wala jihad fi sabilillah saxaaba yi bi sallallahu alayhi wa sallam même jihad ci yoon yàlla subhanahu wa taala sax bis yi nga jëf-jëf yu baax ci bis yi moko gëna gën ndax sahaba yi fi ñu tegoon jihaad parce que jàppoon nañ jihaad mooy ngir tasaare diine yàlla ji subhanahu wa taala ekkati li nga xamante ne moom mooy baatu yàlla subhanahu wa taala jàppoon nañ ne jihaad bokk na ci jëf yi gën a màgg ci lislaam moo tax ñu gaawantu ne yaa rasulallah ba ci jihaad rëy gi rëy rëy ku jëf-jëf yu baax ci fukki fan yii nii moom moo gën a rëy jihaad yonente bi ne ba ci jihaad ci yoonu yàlla jëf-jëf ju baax ci fukki fan yi moo ko gën a rëy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di gën a leeral daal ne walal jihaadu fi sabilillah ba ci jihaad muy xare ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala jëf-jëf yu baax ci bés yii nii moom moo ko gën a rëy lu dul koo xamante ne nii dafa dem jihaati dépensé ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala bakkanam ak alalam mu dem jihaati alalam dellusiwul moom mu daal di shahid ñu daal koy boom ci jihaad boobu noonu mu dee ci yoonu yàlla kooku noonu rek jihaad boobu noonu rek mooy li nga xamante ne moom moo gën a rëy ay jëf yu baax ci bés yi ñu nekk ki nga xamante ne dafa génn dem jihaad yi dellu ak bakkanam dellu siwul ak alalam kooku noonu rek moom moo nekk li nga xamante ne ni moom moo moo gën a rëy li nga xamante ne moom mooy jëf yu baax ci li nga xamante ni moom mooy bés yi ñu toll kon bés yi gën a rëy bis yi gën a màgg mooy bis yi ñu nekk nii kon jaam bi bul sàggane bis yi nga xamante ne ci lañ nekk loo mën a def ci lu baax moo xam jàng alquran soo mënee wàcc alquran ci bis yi ñu nekk def ko di tudd yàlla subhaanahu wa ci bis yi ñu nekk di saraxe di ci def lu baax a baax a baax a baax a baax nga bañ lii nga xamante ne nii moom mooy ngëneelu bis yi daal lay raw ndaxte yàlla subhana taala waat na ci bés yi ndax màggaay gu mu am ak tedd nga yàlla ne wa layaalin ashar te layaalil ashar muy fukki fan yooyu noonu wala fukki bés yooyu noonu yàlla subhana wa taala moo ngi ci namm fukki fan yi nga xamante ne ni moom lañ nekk ci dil xijja te ibnu kathir boo demee ci tafsir ibnu kathir wa layaalin ashar la ko firee nee na al muraadu biha asharu dil hijja te mooy fukki fan yi nga xam ne moom mooy jiitu ci weeru tabaski te loolu mooy waxi abdullahi ibnu abbas mooy waxu abdullahi ibnu zubair mujahid ak ñeneen ñu ñoom ci salaf ci kàngami salaf yi noonu lañu firee li nga xamante ne moom mooy aaya boobu noonu euh, saïd bokkoon na ci kàngami salaf yi bu bis yi masaana dugg daf daan takk ndigam lu bu baax a baax góorgóorlu bu taratar xatta ñi nga xamante ne xamoon nañ ko dañ naan kii naka la mën a defee lii nga xamante ne mi ngi koy def ngi ragal gum ragaloon yàlla ak bañ ngënee li nga xamante am na ci bés yi daal koy raw kon ki nga xamante ne nii bés li ci yàlla ëmb ci ay ngëneel dafa rëy umpalewulew euh, umpalewu leen ne lu ëpp ci farataay aj ñu ngi koy def ci bés yi taxawaayu arafa muy bis bi gën a rëy ci bis yi lañ nekk ak fukkeel ba muy bis bi nga xamante ne bis bu màgg la ci kaw suuf muy bis bi ñu rendi xar yi muy bisu tabaski moo tax ibnu rajab rahimahullah di wax ne fa man ajaza an alxaj fi kulli aamin qadira fi lashri ala amalin yacmaluhu fi beytihi yakunu afdalu min aljihaad nee na képp koo xamante ne mënul yàlla mënu koo wërsëgaleel muy aj at mu nekk nee na yàlla subhaanahu wa defal na ko bis ci bis yi ay jaamu yàlla yoo xamante ne ni moo gën sax li nga xamante ne moom mooy xare ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala kon jaamu yàlla yi bis yii xamante ne ci lañ nekk jullit bi war naa def kimtalay kàttanam njëkkante ci yi ci yàlla subhaanahu wa taala dëxëñ waaye mu gaawantu lii ci nekk ci ay yiw mu daal koy exploité daal koy jëfe ndaxte bis yu am barke la waaye jullit bi war na cee wan yàlla subhaanahu wa taala lii nga xamante ne moom mooy aw yiw ci jaamu yàlla ci façon bu mu ko mëne ci tudd yàlla ci zikr ci saraxe ci julli di guddi gi di julli xiyaamu layl waaye bokk na ci li nga xamante ne nii yàlla subhaanahu wa taala def na ko ci yoonal ko ci bis yi ñu nekk mooy tabaski tabaski ci fukki fan yi ci lay mu nekk sunnaay sunu maam Ibrahim nekk sunnaay suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci tamit li nga xamante ne ni yoonal nañ ko julit bi war di ko bëri di lu mu koy def ci bés yi ni mooy di takbir mooy wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd moo xam takbiir yi nga xam ne dañ koo boyal te takbiir yi ñu boyal mu ngi commencé bu weeru tabaski bi teroo rek feeñee ci la jullit bi di commencé di takbiir takbiir yooyu da koy continuer ba keroo bisu arafa ca fajar ca la dakk ci ki nga xamante ne nii mooy ki nga xamante ne nii ajul bokkul ci ujjaaji bu weeru feeñee rek ci lay commencé di takbiir allahu akbar allahu akbar di tax ñu tuddee ko takbiir bi ñu boyal mooy ne jullit bi daf koy wax fu mu nekk moo xam ci marché la nekk moo xam këram la nekk moo xam ci otoom la nekk moo xam ci biroom la nekk moo xam ci marché la nekk moo xam fu mën di nekk dafa war di bëri lu ñuy wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy takbir bi ñu boyal moo ngi commencé bu weer wi feeñee ba dugg rek julit bi fu mu nekk ci mbedd mi di dox wala muy liggéey muy bari li wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ba ci fajaru bisu arafa ki nga xamante ne ajiwul boobaa waaj li nga xam ne moom mooy takbiir yi ñu boyal foofu lay yem mu des takbir yi nga xam dañ koo tënk teg bi lañu tënk li ñu ci jublu moom mooy boo ko wax lu dul ginnaaw boo paree ci julli ginnaaw bu sëlmalee sa julli julli juróom ci nga koy wax muy boo paree julli suba tusbaar takkusaan timis ak gée ci nga koy wax ak bu fekkee ku julli ci mbooloo la ak wax ko bu paree ci julli gi ki nga xamante ne ni ajiwul day continuer ci takbiir boobu noonu ba keroo ñetti fan yi tabaski yi kon ñaari façon takbir moo am takbir bi ñu boyal boobu bu ñu ne weeru feeñ na weeru teru na ci lay commencé lu tax ñu boyal ko mooy fu la neex nga koy wax sooy nelaw soo tëddee sa lal sooy liggéey nekk sa bureau sooy nekkee ci waañ bi jigéen di togg wala ngay dox di dem ci jàkk ci góor wala nga toog mu ne sa xel da ngay wax allahu akbar allah amul amul place bu la neex nga wax ko ak heure bu la neex moo tax ñu tudde ko takbir yi ñuy boyal waaye takbir yi nga xam dañ koo tënk yooyu ñu ngi koy wax te mooy ñu commencé li nga xamante ni moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy fajaru arafa ci lay commencé fajaru arofa ci lay commencé te mooy ki nga xamante ne ni ajiwul takbir yi ñu boyal li ñu commencé fajaru arafa ba keroog ñetti fan yi nga xamante ni moom moo tegu ci tabaski bu ñu tabaski jour tabaski ba teg ci ñetti fan ci la takbir yi jeex mooy تكبير يام دنج كو تنك دوكو واخ ندول بو باري سي جولي بو سامي سي جولي نغا واخ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد واي كيغا خامتاني يالا دوكو ديفال توفيق مو اجي تكبير يغا خامتاني دنج كو تنك مون كوماسي غيناو جولي تصبارو جورو يغا خامتاني مو جورو تبسكي مون راني خاري با باري بني با ساني جامرا جامرة العقبة با باري def tawaf al ifada bu julli dhuhur takbir yi ñu tënk ci ki nga xamante ne dafa aji màkka ci lay commencé moom ba ñetti fan yi nga xamante ne nii moom mooy ñetti fanu ayaamu tashriq mooy ñetti fan yi tegu yi topp ci bésu tabaski ñu koy woowee ayaamu tashriq kon loolu mooy teg li tax ki nga xam ne dafa aji moom takbir yi ñu booyal mu koy yéex a di commencé après zuhur te ki nga xam ne ajiwul mu koy commencé fajaru arafa mooy ki nga xamante ne dafa aji moom mi ngi occupé wu ci talbiya yi muy rab labbayka yi li muy wax labbayka allahumma labbayka la sharik parce que bu demee sànni jamra rek ci la labbayka yi arrêté su arrêté yi ci lay commencé takbiir yi nga xam ne koo tënk nga xamante ne du ko wax lu dul ci ginnaaw bu jullee ba pare la koy wax kon loolu moom mooy différence takbiir yi nga xam dañ koo boyal ak takbiir yi nga xamante ne nii dañ koo tënk loolu mooy différence bi te bokk na ci liy teetal ne takbiir yi dafa am takbiir yu ñoo boyal ak takbiir yoo xam dañ koo tënk mooy daje goo xam ne saxaaba yi daje nañ ci bokk na ci Omar ak Ali ak Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud yàlla na leen yàlla gërëm ñoom ñëpp ñooñu bokk na ci seeni jëf loolu daan nañ ko def kon jaamu yàlla yi nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax taxawee lii nga xamante ne ni moom mooy fukki fan yi nga xamante ne moom mooy ashra dil hijja ñu xam ne fukki fan yu barkeel la fukki fan la yoo xamante ne yonent bi salaa sallam wax naa ci ci xadis bu wér ne amul fan yoo xamante ne nga def ci jëf yu baax yu gën fan nga xamante ne moom lañ nekk muy ashratul hijja yonent bi salaa sallam dem ba ne nga yu baax ci fukki fan yi ni gën moo gën a rëy jihaad ci yoonu yàlla mooy xare ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala lu dul koo xamante ne nii dafa dem xare ci àndal andiwul bakkanam andiwul li nga xam ne moom mooy alalam mooy lépp daf caayam ca xare ñu rey ko ca xare ba mu shahid kon ñu xam ne ay bis yu am barke la yàlla subhanahu wa taala yoonal ci ñu koy màggal di ci takbir di ci wax allahu akbar yu bay ci commencement bis yi nga xamante ne ni mooy bu weer bu feeñee ba fukki fan yi yàlla subhanahu wa taala yoonal nañu ci màggal yàlla subhanahu bokk na ci tamit li ñu sopp ci bis yi jullit bi di ko def mooy di woor ki nga xamante ni ajuwul bu mënee woor juróom-ñeenti fan yépp parce que bisu tabaski bi fukkeel bi kenn du ko woor mais comme que juróom-ñeenti fan yi moo ci gën a bëri moo tax boo mënee woor juróom fan yi nekk na ci li nga xamante ne ni moom moo lu baax baax la mu waaye rawatina lii di taxawaayu arafa ki nga xam ne ajuwul mu bañ kaa sànq mu ko woor ko ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ti حديث buwere wer nena cingenelu ور عرفة نينا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا ور بسو عرفة نينا يلا سبحانه وتعالى دلي فرل سي بكارو أتمجيتو أك أتمنى حمد المموينيو كون أبجلت war naa def kimtalay kàttanam lii di bu mënul woor juróom-ñeenti fan yëpp yi nga ne moom moo jiitu ci weeru tabaski bi lii di taxawaayu mu bañ kaa raw parce que ngëneel gu rëy la sopp nañ nga woor juróom-ñeenti fan yëpp waaye bis ba ca gën a feddali nga war kaa woor mu bañ laa raw mooy taxawaayu arafa naam kon jullit bi na woor rawatina lii di taxawaayu arafa waaye taxawaayu arafa ki nga xam ne dafa aji du ko woor ki nga xam ne moom moo ko war a woor mooy ki nga xamante ne nii ajul ki nga xamante ne ajiwul moom mooy woor taxawaay araf waaye ki nga xam ne dafa dem aji moom du sunna muy woor li nga xamante ne moom mooy taxawaay arafa ndax mu am kàttan mën a jaamu yàlla mën a ñaan yàlla bu baax ci bis boobu nga xamante ne moom mooy bis bi gën ci at mi kon jullit bi nga xamante ne ni ajiwul moom dina am ay yool même bu ajiwul ci bis yi nga xamante ne moom mooy fukki fan yi mu yi njëkk ci bisu tabaski bi mooy na woor na jàngal Qur'an tudd yàlla subhaanahu wa taala subhaanallah alhamdulillah wallahu akbar bëri lu mu koy wax waaye di bëri li muy def ay takbir allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd kon ki nga xamante ne dafa dem aji moom du woor taxawaay bisu arafa waaye ki nga xamante ne ajiwul ñi nga xamante ne ajiwul dañuy dafa nekk sunna bu feddali boo xamante ne dañoo war a woor li nga xamante moom mooy taxawaay arafa waaye lii di bisu tabaski kenn du ko woor dafa xaraam julit mu wor li nga xamne mom moy bisu eid te mom moy bisu tabaski daganul ci l'islam bisu eid ab julit mu koy wor dafa Haram. kon li nga xamne mom mo dagan mom moy mu wor jurom ñenti fan yi waye ki nga xamne dafa aji mom jurom ñetti fan lay wor parce que taxaway arafa mom duko wor ki nga xamne mo aji wul mom moy wor jurom ñenti fan yi naam te ba ci gëna a feddali mu bañ ka war mom moy nga xamne mom moy arafa ngëneel lu rëy a rëy rëy ak pay gu màgg a màgg moom la ci yàlla subhaanahu wa taala dige bokk na ci tamit li ñu war a bàyyi xel mooy jullit bi bu ko yàlla mayee alal wala bu même bu ko yàlla mayul alal sax mu bëri lu muy saraxe ci bis yi saraxe sopp nañ ko torop ci bis yi nii mu bëri lu muy saraxe bëri lu muy julli ay naafila ci bis yi ñu nekk di jóg guddi gi di def xiyaamu layl fukki rakk yi ñaar yi nga xamante ne moom lay mu ànd ak farata yi mu bañ koo raw te mooy ñeenti rakka bala moo julli tisbaar ak ñaari rakka bu jullee tisbaar ba pare ak ñaari rakka bu jullee timis ba pare ak ñaari rakka bu jullee gee ba pare ak ñaari rakka bu avant muy julli li nga xam ne moom mooy julli suba mooy fajar mu bëri lu muy naafila ci bés yi nii bëri lu ciy saraxe bëri lu mu ci jàng alxuraan lépp lu baax daal mu koy def ci bés yi ñu nekk ndax mu xam ne bés yu barkeel la bés la yoo xamante ne nii jëf ca jëf yu baax moo gën a màgg moo gën a nekk yiw xare ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis bi kon bis yii nii nañ ko exploité mu bañ ñoo raw ñu taxawee ci suñu jaamu yàlla subhaanahu wa taala ñu jëfee ci kaw di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu ci tawféex ba ñu mën koo taxawee yàlla yombal ñu ñu taxawee lépp loo xamante ne nii nekk na ci ci aw yiw waaye jaamu yàlla yi bokk na ci li nga nii tamit war nañ koo def ci bis yi nii yàlla mu nek sunna yalla subhanahu wa taala yono ko ci bis yi ne bis yi bu tero kep ko xamanteni bëgg tabaski nga nek borom kër wara tabaski daganul ci yow bu bu weer wi daganatul ci yow nga dag say we wala nga dag sa karaw wala lenn ci lo xamanteni ni ci sa yaram la ci hadith bo xamanteni ni ummu salama yalla ko yàlla gërëm moo ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen gisee weeru tabaskit bu teroo muy weeru zilhijja ngeen bëgg a tabaski bëgg a war a rendi war a tabaski nee na na ngeen téyendi li nga xamante ni moom mooy seen karaw ak seeni we bu leen ko dagg jullit ñu bëri nag dañuy sàggan ci loolu waaye képp koo xamante ne nii war ngaa rendi tabaski su weeru duggee daganatul ngay dagg sa karaw wala ngay dagg sa we wala lenn ci sa yaram naam xadis mu nekk xadis bu wér nekk ci saxi muslim euh, ki nga xamante ne ni yéenewul tabaski moom du ci dugg ki nga xamante ne amul alal wala koo xamante ne ni du rendi du tabaski boobaa ku ci dugg mais koo xam ne yéene na dina tabaski dina rendi xar dina jënd xar ren su weer wi teeroo ba jour tabaski ba ñuy rendi xar mi amatu droit dagg sa yooyu wala sa karaw mu nekk xadis bu wér a wér nekk euh, loo xamante ni jullit ñu bari duñ ci bàyyi xel ki nga xamante ne nii nag yéeneegul c'est-à-dire amagul waaye mu dem ñu dem a dem ba ci bisu tabaski mu ren boobaa kooku du ci dugg parce que yéenewul woon avant waaye képp koo xamante ne nii yéene naa tabaski bu weer wi teeroo fukki amoo droit dagg sa karaw wala say we ba keroog ngay rey sa xar naam kon jaamu yàlla yi ragal leen yàlla subhaanahu wa taala ñu sori lii nga xamante ni nii yàlla koo tere yonent bi saa tere ko te mooy képp ku nar a tabaski nga bañ a dagg say we ak sa karaw ndaxte yàlla subhaanahu wa taala daf ñoo bëggal ñu téye suñuy karaw ak li nga xam xamante moom mooy suñuy we jaamoo ko yàlla subhaanahu wa taala ba kero ñuy tuur dereet te mooy rey suñuy xar mu nekk sun mu nekk loo xamante ne ni lu sax la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko mu sax kon julit bi na bàyyi xel bu baax ragal yàlla subhaanahu wa taala su naree tabaski nara rey xar su ne weeru feeñ rek mu bañ a dagg karawam bañ dagg ay weyam ba keroog muy rey xaram te loolu jaamu yàlla gu rëy la nga xam ne jullit ñu bëri duñ ci bàyyi xel kon nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci loolu ñu bëri lu ñuy zikkar di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah ñu xam ne lii mooy ay bisam lii mooy ay fanam kon ñu xam ne képp koo xamante ne nii yàlla boolewula ci aj ji xam ne yàlla subhanahu wa am na yeneen yiw yum la bàyyil ci fukki fan yéeni سراخي تجانج القرآن تكبير يال سبحانه وتعالى بيوخ القرآن ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات الإمام نووي نينا وعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره إمام نووي نينا صبننتي جلد بي مبيل ميتود يالا أكدي دف أي أذكار جبس جفك فاني نحمد المونجك جويرو تبسكي مبيل لنكي دف صبننكو جي مبيل لنكي ci li nga xamante moom mooy yeneen bés yi te fañ ko gën a soppe mooy jouru arafa ci ki nga xamante ne ne yàlla xéewale na ko mu dem aj mu bari lu muy tudd yàlla subhaanahu wa taala kon ñoo ngi ci bis yu rëy ñoo ngi ci bis yi nga xamante moom moo gëna a màgg ci bisi àdduna yi moo ëpp ngëneel ci bisu àdduna yi ñu xam ne lii di taxawaayu arafa ki nga xamante ne ne ajiwul daf koy woor comme ni ngeen ko déggee ci xadis bi yàlla subhaanahu wa dalay faral sa bàkkaar yi ni la yàlla subhanahu wa taala day faral at ci at mi weesu ak at mi nga xamante ne moom mooy ñëw ci say bàkkaar waaye ñi nga xamante ne ki nga xamante dafa aji moom du ko parce que moom ma nga ci aj ga te dafa soxla ñaan moo tax sàkku mu am kàttan ngir mu mën a jàkkaarloo yàlla subhanahu wa taala ñaan ko kenn ci soxnaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana woor fukki fan yi nga xamante ne moom fukki fanu weeru tabaski li ji li jiitu ci weeru tabaski te mooy zil xijja daana woor juróom-ñeenti fan ya bu ajaan woor li nga xam ne moom mooy juróom fan ya ki nga xamante ne ni ajiwul moom day woor juróom-ñeenti fan yëpp boo ci boolee bisu arafa parce que ki aji moom du woor taxawaayu arafa waaye yonent bi saa daana woor tamit bisu tam waaye daana woor weer wu nekk ñetti fan waaye daana woor altine ak alxamis képp koo xamante ne bëgg nga yiw bu xañ sa bopp ngëneel yu rëy yi nga xam ne moo nekk ci bis yi ci woor ak jàng alxuraan ak def lu baax naam ibnu xajar nekk boroom xam-xam bu rëy nee na li tax fukki fan yi nii nekk fi fan yi gën ci at mi lan moo tax mu am ngëneel yu rëy yooyu noonu nee na ndax place bi nga xamante ne nii ak waxtu wi nga xamante ne nii mboolem jaamu yàlla yi da cay daje parce que fukki fan yi ni bis bi gëna reuy wala ñaari bis yi gëna reuy ci at mi ci fukki fan yoy la nek muy zuru araf taxawaayu arafa ak bisu tabaski to ñaari bis yoy mo gëna reuy ci at mi ak la cey daje ci julli ak saraxe ak wor ak aj màkka ci yàlla subhanahu wa taala ci fukki fan yoy la ko def kon bu di xol lu ci bari ci ponk l'islam yi daje na ci li nga xamanteni mom moy daje na ci fukki fan yi muy tawhid muy wédal yàlla subhanahu wa taala xam nga ne aj li ko laal mooy tawxid labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk la sharika lak bokk na ca julli bëri looy julli ci fukki fan yi nii di naafila ak julli say farata bokk na ci tamit looy woor bokk na ci tamit li nga xamante ne nii moom mooy saraxe moo xam saraxe bu war la wala saraxe boo xamante ne nii saraxe sunna la saraxe naafila la mooy saraxe bu yore asaka nga yénn ka wala nga bari looy saraxe saraxe boo xamante ne saraxa naafila ak aj bonk aj ci weer yi nii la ci fukki fan yi nii la te daje gi mu daje ci place bi nii ak ci waxtu bi nii jafe ne jafe ne lu muy daje ci weneen waxtu moo tax fukki fan yi mooy fukki fan yi gën ci at mi moo tax benn borom xam-xam bu mag Cheikh Mohamed Ibn Salih Al Uthaymin yàlla na ko yàlla yërëm nee na nee na nit ki day day yéemu lu bëri ci nit ñi nit ñi ñuy sàggane ak ni ñuy ñàkk a joxe yitte li nga xamante ne moom mooy fukki fan yi nee na leen di fekk fukki fan yi nga xam ne ci weeru góor góorlu taxawee nee na lu ëpp ci nit ñi dañuy sàggane fukki yi nga xamante ne moom mooy te fukki fan yi bu dee ci wàllu bés fukki fan yi mooy gën a ci at mi bu dee ci wàllu guddi fukki fan yi mujj ci weeru koor moo gën bu dee ci wàllu bëccëg fukki fan yi nga xam ne moom mooy fukki fan yi ñu nekk nii ci weeru tabaski mooy fukki fan yi gën nee na da gis lu bari ci nit ñi nee na daanaka sax doo gis ñu jox li nga xam ne moom mooy yitte fukki fan yi nga xamante ne ni daanaka fukki fan yi ak yeneen fan yi amul différence ci ñoom nee na yéemu ci ñi nga xamante ne ni ñu ngi def loolu nee na waaye jullit bi su taxawee ay jëf yu baax ci fukki fan yu màgg yii ni màggal ko taxawee ko comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa leerale ci ay jëf yu baax nee na kooku de am na yiw wu rëy a rëy mi ngi ci yiw wu màgg màgg màgg màgg màgg kon jëf ju baax bu ñu ko waxee lépp loo xamante ne jëf ju baax la yàlla subhanahu wa taala yoonal ko yonent saa yoonal ko day dugg ci jëf yu baax moo xam julli la moo xam jàng alquran la moo xam woor la moo xam aj màkka la day dugg ci fukki fan yi nga xamante ne ci lañ nekk kon nañu def suñu kéemtalaay kàttan ñu taxawee li nga xamante ne ni moom mooy fukki fan yi nga xamante ne ni ci lañ nekk te moom mooy fukki fan yi nga xam ne moom mooy jiitu ci weeru tabaski ñu bañ koo sàggane ñu taxawee ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax jouru arafa képp koo xam ne ajuwul nga mu bañ laa raw nga woor ko te li gën mooy nga woor bés yi nga xam ne moom moo jiitu arafa yépp bu weer wi teroo ba arafa nga maasale ko ki nga xam ne aju na moom juróom-ñetti fan la war a woor taxawaayu arafa du ko woor kon yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala kàttanal defal ñu tawfiq bañu mëna taxawé li nga xamanteni ni mom moy fukki fan yi nga xamanteni ni yàlla boole nañ ci ñu boole nañu ci ñu fekke ko yàlla subhanahu wa taala boole ñu defal ñu taw ñu def ci jëf yu baax parce que jëf yu baax bari na façon Cheikh Moussa mi nee jëf yu baax ay façon la mo xam jàng alquran la nee wala tuddu yàlla ci tasbix mooy wax subhanallah tahmid di wax alhamdulilah yu bëri takbir di wax allahu akbar digle lu baax tere lu bon julli saraxe baax jëmale ci say waajur def lu baax defal ko say waajur di jokk ak mbokk ci fukki fan yi ñu nekk nii di woote téléphone say mbokk di jokk mbokk ku nekk ci béréb yi nii bu say mbokk ñëwee aj nga leen di jàppale bokk na ci jokk mbokk nee na jëf yu baax kenn mënu ko takk jëf yu baax dafa bëri façon yoo xam ne kenn mënu ko takk cheikh Uthaymin Allah nee na ida tasaddaqta bi dirham fi hada al ashr wa tasaddaqta bi dirham fi ashr ramadan fa ayuhuma ahab ila allah شمنته من هنا بصرخ بين درم تي بسي من هكني أدنى صرخ درم تي وير كور بن مو تي جنا أبيو شمن أثي من هنا نصرة خدرم تي بسي من هكني مو أبيو نصرة خدرم تي وير كور كون بسيني بسي روي لا نحكي بسيني موم لا يالله سبحانه وتعالى جنا صوب تي بسيني تي أنا بيب نعم كون جلبي نا بري لينغ هم تاني دفتي دفت jëf yu baax ci bis yi ñu nekk moo xam saraxe la moo xam lu mu mën di doon bokk na ci beneen version yonent bi saa sallam ne ma min ayamin azam inda allahi wala habu ilayhi al amalu fihina min hadi al ayam al ashar yonent bi saa sallam nee na amul bés yu gën a màgg loo xamante ne moom moom moom la yàlla subhanahu taala gën a sopp gën kaa bëgg ñu jëfal ko ca jëf yu baax lu mooy bés yi ñu nekk nii te muy fukki fan yii nii yonent bi saa sallam nee na fa akthiru fihinna min at tahlil wa takbir wa tahmid yonent bi saa sallam nee na ngeen bëril lu ngeen cay wax laa ilaha illa di ca wax allahu akbar di ca wax alhamdulillah na ngeen bëri lu ngeen ciy tudd yàlla subhanahu wa taala naam kon bis yi nii bis yu rëy rëy la jullit bi war koo sàggane jullit bi war na koo war na cee def joxe ci lépp loo xamante ne nii jëf yu baax la ci takbiir ndax bokk na ci li gën a fedd ci gën ko sopp ci bis yi mooy takbiir comme ni nañ ko leeralal ci commencement waxtaan wi takbiir ñaari façon la ci bis ci fukki fan yi takbiir yoo xam dañ ko boyal weeru feeñe lay commencé ba fajaru yawmu arafa ci ki nga xamante ne ni aciwul ba ci fajaru arafa takbiir yi nga xamante ne dañ koo tënk ci lay commencé ci ki nga xamante ne ajiwul muy bu jullee ba sëlmal ci lay def ay takbir takbir yi nga dañ ko tënk foofu lay commencé waaye ki nga xam ne dafa aji takbir yi mi ngi commencé takbir ñu koy commencé bu weeru feeñee ba ba fajaru arafa bu boobaa takbir yi booyal foofu lay yam waaye kañ lay commencé takbir yi nga xamante ne ni dañ koo tënk mi ngi koy commencé bis bu biñ jullee tisbaar ba pare bisu tabaski ki nga xamante dafa aji màkk naam kon takbir yi ñu booyal ak takbir yi ñu tënk noonu lay demee ci fukki fan yi ni ñoo ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawféex ak kattan ba ñu mën a joxe bépp jëf bu baax boo xamante ne ni yàlla subhanahu bëgg na ko ci fukki fan yi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ak dégg ak ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad